فاشهدوا أن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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة فكأنما قرب إذا حضر الإمام خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعنانية والعنانية ترزقوا وتجبروا واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في هام من عام من عام في يوم هذا من عام هذا إلى يوم القيامة ومن تركها في حياته أو بعده وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه وعن ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعوان منبره يقول لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليحتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ومن ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره فعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات ولا تغرنكم الحياة الدنيا إنها متاع قليل عما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت فإذا البحار فجرت فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 الله أكبر الله ربنا ولك الحمد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 كنتم ne mooy ut na magam ci minbar bi waaye ut na ci mbooleem ansaaru diin niveau national mbooleem fédération ansaaru diin yi ndax mooy président ansaaru diin national di nuyu suma sëriñ suma xalifa Laaj Ahmad Daam nga xam ne Cheikh Diagne lu wax na ko léegi ñu nii ci ci ginnaaw mbooloo mi nga xam ne mooy suñu sëriñ mooy suñu xalifa moo ñu jàngal mooy suñu mag mooy suñu lépp ñu ngi koy nuyu di ko sëgal ñu ngi nuyu mboolem ak ñi représenté kër diine yi ñu ngi leen di nuyu kenn nekk dañuy jaar sa tur ndax ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew di nuyu di jagleel nuyu administrative monsieur le gouverneur ak le préfet nga xam ne ñëw nañ bokk ak ñun seen jotaay di ci kontaan du nous ngir représenter le vice de l'industrie maire de la commune de Louga Oui, une forte délégation moom le bëggoon de femmes de am lu ko jàpp moo tax de cabinet Djibi une forte délégation dis nous, monsieur Omar Bonkata, c'est là, président directeur général de Trains Bleus nga xam ne qui a jàppale nañu bu baax ci di nuyu suñu gan yu tedd yi nga xam ne ñi ngi ànd ak sëriñ bi ak ñi ngi ànd yi nga xam ne ñoo jógee ci gox yu fasantikoo yi di gërëm mboolem ban yi nga ne seen i gërëm ak seen accompagnement mat ci la yàlla jaaree ba taxawal lii di gërëm nag daayira bi nga xam ne ñoo bokkoon di liggéey lii di leen beral gërëm seen ñax fekkiwu seen poos fekkiwu ko may ñaan mu defal leen ñaan mu mel ni inauguré na gannaaw bi nga xam ne ne Cheikh Mouhamad Mouhamad mun amina jiite na jumaa ju jëkk ci barab bi mu mel ni mooy inauguration bi ñun ci kubu daggante abrigan waaye allahu akbar ji def ak asalaamaaleykum rek mooy inauguration bi li ci des bu magam ñëwee dana ko mottali mu mel ni tey leen di soogu julli jumaa waaye yàgg leen tey julli julli juróom ci septembre 2014 lañ sañ si fii Mamadou Amine Ibrahima Niass tegal ñu xeewu njëkk li ci tegee ñaari at ci leen tàmbali julli si julli juróom ci ndigalam gannaaw gi lépp loo xam ne dana ko ci def dana ko def ci jàkk xamee ne almaaji Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop tërë doomam teew fi nga xam ne conférence bi ñu jëkk a defal dafa mel ni jotaay bi la ñu doon bu juj ndax thème bi mi aju woon ci place et de la mosquée Cheikh Mamadou Amine mu ne Baay radiyallaahu anhu moo janoon jëmm yàlla ya mu ne kon ku baax ku nekk rek. xamal ne Baay radiyallaahu anhu moo ñaanoon jëmm yàlla ja ngir mu baaxal la nga àndal moom. waaye mu ne Baay ñes yemut foofu de. jógee ngir na yokk teraanga ak baax. njëriñam xeet bi moom yokk teraanga yokk ko baax. ak jaana xasa das. uktub aana firaaq masaajida wala tatruku fard. ndaw yi jàng leen. bàyyi nee na jëlaat mu yéen Takulen, juplen, jub leen baax leen waaye na ngeen baaxee xam-xam nee na bu leen bàyyi benn xam-xam jàng leen boo leen sànni xam-xam yi لا على المشقة المشقة فينا ذوي الأخلاق الماضية والمعاني أو أسماء بيوم ويبين العاصمة المبد من جاء له النوى ويقول لو يقولي لو يقم لجنن أم من قلقم أم من تكتبا أم من إتي من يونكت يونيوني سجيني رجالا كي يقرأوا واقتصب القرآن سبي ولا باي ديغال نمبولم سبي na leen digal seen mboolem doom yi ñu jàng alquran ndax ngir nuyuwaale mbooleem jaboota Cheikh Ibrahima gi teew ci jotaay bii ak mbooleem muqaddam yi ak sëriñ yi nga xam ne na nga duggee Mauritanie ci Kumbayaan yi di nuyu imaam yi nga xam ne moom ñoo bokk dëkk ci dëkk bii di Louga Asar at Imam Asar Nalani firanya sering kali kali Dinyal buatan Syekh salam, Malini ini misalnya benar, Bersiara di Kota Tegal ini misalnya Prefect délégation yi nga xam ne nañ fi ak di représenté monsieur le maire day mën naa ne ci bi mbooloo mi gën a xam digganteem ñoom ñaar nee na day bi sëriñ bi nekkewoon fii ñoom ñaar daawuñ gëjee daan na dem di ko seeti moom it mu daan ñëw di ko seet si nee na mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk utu ko ci daje rek mi ngi lay laaj ala nee na ñu ngi seedeel sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy kilifaal sëriñ Abdou Sané ni nekkin mu rafet daal la fi nekkee woon nee na day doon fii ñëpp ñëw dafa mel ni ab service moo koy indiwoon waaye gannaaw ba ñaari service la fi taxawee nag you doing? nga xam ne ci jamono toll du ñàkk nekk bés mu changé ñu ne nañ taxawal ay école yoo xam ne danañ doomi julli yi yi ak yi République Saliou Thioune mooy président bi moom Imam Bara mooy secrétaire général bi sëñ Aly Gueye mii di seen moo topp ci moom moom sax day na war a jox waaye Imam Saliou moo ne rek teewal ma ni man président bi fekk na tey jii ñu may lu doon moo ko war a moom tam moo waroon jiite tey ca seen koñ ba waaye yéen sa kër Abdou Sané rëy na lool di lislaam ak ngor ak ak wóllëre ñoom ñu bokk lépp te maam nag jumaa jooju ñeneen ñu ko mën a jiite moo tax ne leen jiite leen ko ma dem dafay sëriñ bi yónni woon ci moom délégation bu mag nag nee na loolu day ko bëri daaw day dootu la doy moo ne mi ngi jiital ci néew bi nag waa kër Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu di nuyu sëriñ Mouhamad El Mbacké di nuyu mboolem surafa yi fi nekk di nuyu mboolem mbokk yi sëñ Abdou Sane nuyu nag daayira Ansaaru Diin Abdou Sané li la yàlla defal rëy na alhamdulilah mu ne sëriñ bi sëriñ moo fi ñëw waaye mboolem dëkk bii ñëpp la xam réseau de Louga ñëpp xam nañ la te baax rekk la ñu leen xam ci yow mu ne dafa am benn kilifa bu seen mbokk la. mu faatuwoon ci Dakar doon borom wërsëg keroog bañ koy ñaanal benn mag ne kii faatu day wërsëgam ku ci mosul suuf nga ci Serigne Abdou Sarr mi day wërsëgam bi day day doon maa ngi ci moom ndax siyaati boobu waaye su ko mënoon fii day lay adara fii lay jullee ak bi jaar na ko mbooloo lay jaar nañ ko ngeen baal ko ak salaam. jërëjëf ah sant wala Oustaz euh, Ibrahima nga euh, préparé wu ñu bàyyee ci gouverneur ci yow laa jëm si mën naa di Cheikh Mouhamed Mouhamina ñu jotee kàddu président Mbow mi suñ li ñëw ci délégation bi yooyu commune dina bàyyi yëpp yow yaa ko xam. kàddu bu ko yow yaa sa kàddu kon monsieur le gouverneur Souleymane Ndiaye chargé des affaires administratives à la gouvernance de Louga vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala ashrafil muslim Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci dëkk bi di di la sant di nuyu bépp kilifa diine imam teewee bés bi ak population région de Louga yëpp imaam ñu ngi teg sa loxo du président de la république son excellence Macky Sall ak membre gouvernement bi yëpp rawatina ministre Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur bu ñu weesoo ñooñu ñu teg sa loxo sama nuyoo mag gouverneur de la région de Louga El Hadj Bouya Amar li nga xam ne moom moo fi woon teewal boppam waaye liggéey bi moom moo ñu jàpp tey activités yi bëri na bëri boo xam ne fi ma toog rek jot naa ci léegi quatorze appel kon euh, mënuñu ci woon ñàkk ñëw ndax lii tabax jumaa ci région de Louga département de Louga commune de Louga sant la ak gërëm ak lu état yàkkam ci la weer yi ñu génn dans ce septembre xam nañ ni président inauguré na juma Dakar Sénégal gépp ni ñu mooy facteur de paix sociale tey aussi région de Louga département de Louga commune de Louga juma ji ñu fi ubbi tey facteur de paix et de régulation suñu ànd ak kilifa diine yi maanaam état ak kilifa diine yi lu deñ abadan daay man parce que ñu ñoo bokk jëmukaay jëmukaay bi mooy rek fexe ba suñu doom yi muy population région de Louga nekk ci jàmm ak ba mën a doxal seen bopp développement am ci région bi te loolu yeneen koy doxee yeneen koy waxee kon ñu def dara dul di leen sant di leen gërëm ci loolu yàggam ci lool yi am fii kon dañ koy def bànneex dañ koy bànneexoo en tant que jullit mais dañ koy bànneexoo en tant que euh, en organisé de représentant de l'État ci région bi imaam kàddu yooyu daal la ñu waxoon ni dinañ ko fi sànni di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax a baax ndax gis nañ seen taxawaay bu baax semaine yi ñu génn xam nañ ni taxawaayu diine am na fi solo am na fi njëriñ lool lool lool lool ak taxawaayu kilifa diine donc ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu سيدنا محمد بن عبد الله سيدي فضل الشيخ محمد بن حميدة الصادق أبناء الحضرة الإبراهيمية جميع العلماء والشرفاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نظرا لأن بعض الإخوة من العرب نهنئ الإسلام على هذه الزيادة زيادة مسجد الشيخ الإسلام حاج إبراهيم يس في بلوغا ونهنئ فضيلة الشيخ محمد الأمين إبراهيم ياس بعد أن هنأنا الخليفة سيدي مولاي الشيخ أحمد التجاني إبراهيم ياس الذي كل ما يصدر من الحضر الإبراهيمي يصدر بأمر منه وهو إنه أبو بكر أمامنا ونهنئ أهل المعتمولان بحضورهم واعتقادا دنيا بكر الإسلام ci dooleeku bi ndokkeel xadara cheikhul islam ibrahim ndax lu nga dëkku diina la dëkku xam-xam la dëkku mbaax la waaye mbaax moom du doy dañuy dooleeku rek ndax ki nga xam ne péyëb moo samp fii jumaa ji bi muy ñëw Sénégal boobu mënoon nañoo wax ne sëriñ amul place ci Sénégal ndax bu nekk daanaka fa nekkoon feesoon na ko waaye ànd ak benn sëriñ di ko dalee Bagdad ba Trinidad amul sañ-sañu wax ne li yàlla amoon jeex na li yàlla amoon jeexul nag moo koy cëppeelu Cheikhul Islam Hadj Ibrahim moo koy cëppeeluwaat di jumaa ji tey ci Louga nga xam ne euh, l'an ba yàlla bindee Louga ba l'an 2000 benn taalibe la fi bàyyi am wala Alaaji Doudou Souleymane Guèye yàlla def sëñ Abdou Gaye ñëw fii ci administration indiaale yaru Baye Gaye indiaale yaru Alaaji Aada Kodol indiaale yaru Cheikhul Islam Hadj Ibrahim xale yi gis ko forcé ko ne ko doo yem ci administration ba tëjoo moom kidnappé ko ci néegam mu soog a génnee li mu amee woon loolu dem bañ àgg ci ay junne àgg ci këri jàng juma euh, kon luñ man lu may dokkee wax nag ne euh, délégation yi dina di wax dëgg yàlla borom microphone bi lim na ñëpp waaye ki nga xam ne mooy Cheikh Baye Wade dafa amoon énne teewal boppam waaye bal na taawam ak délégation bu mag ñu ngi nuyu mbooleem sëriñ si ñu teew mbooleem këri diine yi mbooleem usor yi ak mbooleem di ndokkeel ak sëñ Abdoulaye asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin. sayyidina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. wa ala alihi wa sahabatihi wa ala tabiin wa tabiihim bi ihsaan ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa xam naa ndokk bi nga waxee ne lu baax doy parce que boo jiitu jiitul woon loolu kon buñ ma joxee parole damay damay ne ne njàng salaat fàtte rek tasaaroo parce que dëgg-dëgg dañ fi dégg bay waaye bés bi am na junj yu junj yàlla fekk di dégg nañ ndaxte benn mooy lislaam moo ñu fi lislaam boo yoon rek laa gis lislaam may la nga wax man mooy bi ngay dugg ci diine ji ne ashadu mooy man kon nit ki il faut mu dugg ruq préparer boppam defar boppam loolu moo indi mbootaay yeeg tariqa yeeg yépp ku ci nekk beru pour defar sa bopp pour nekk élément bu positif boo xam ne bu mbooloo mi dajee nga mën a indi sa participation ci mbooloo mi waaye bi nga xasee ba wax loolu ba pare rek ba lislaam raxas la amatul fenn fooy wax boo commencé fatiha léegi ihdina siraatal mustaqima ngay wax iyyaka nasta'inu ñun ñun rek ngay waxati léegi dootoo waxati ban loolu benn junj la bi ci lislaam mais bi nga bi ñëwee fii ci jumaa ji tamit jumaa lu muy tekki mooy ne julli engagement personnel la boo xam ne kenn ku nekk yaa ko war a def boo ko defoon sa kër baax na bu dul àjjuma waaye ñu ne déedéet gannaaw boo jëlee engagement ba pare mboolem ñi jël engagement bu mel ni sa bos danga war a bokk ak ñoom di defandoor ak ñoom loolu moo indi tabax jàkka waaye bañ tabaxee jàkka yi tamit doyut ñu ne bési àjjuma foog ñu wàññi. barab yi ñëpp di dajaloo li gën a bëri ñi man a bëri dajaloo ci benn barab bi loolu demee ba ci kanam ñu ne déedéet loolu doyut dañuy buñ demee aj mbooleem ñiy dem aj dañuy tëj jumaa yeeg jàkk yëpp dajaloo ñoom ñëpp ci kanam Kaaba ga Kaaba ga benn xeer rek la waaye nag li muy symboliser jubluwaay bi nga xam ne moom lañ jublu yàlla ak bennoo bennoo bi nga xam ne benn jubluwaay bi nga xam ne ñoom la ñoom ñëpp moom lañ am loolu moo tax mu am maanaa boobu ñu war a tëj jàkk yëpp dem ci moom tey jii ñu ñëwaat fii ci ci barab bi mu amaat beneen façon bu mu fi feeñaate mooy wax nañ ne ay imaam ñoo tëj seen jàkk yi waroon a jiite tey ñu tëj seen jumaa yi ñëw ay kilifa yu mag nekk ci ci bokk ci famille yu mag a mag a mag a mag ñoom ñëpp bàyyi liñ doon def ñëw fii pour pourquoi parce que yàlla daf may fàttali la lañ wax ne moom la Cheikh Ahmed Bamba waxoon keroog ba nga xamee ne nii am na jël na ñaari jalaale jël na jalaalee nii jox ko benn taalibe bi ne ko yóbbul ma ko alaaji ñes mooy mooy maam alaaji mu wan ko gannaaw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko xam nga lu tax ma def li ma defam mu ne ko mbakke lu tax nga def ko mu ne ko li tax ma def ko mooy dama xam ne dana neex yàlla te dana naqadi seytaane lii rek a tax ma def ko kon nag jotaay bii tamit xam giñ xam ne dana neex yàlla te dana naqadi seytaane moo tax ñu ñu dajaloo fi ñun ñëpp bàyyi suñ daraja yeeg yëpp ñëw dajaloo fi loolu nag suñ ko xasee ba xam li ci des mooy ñu jëfandikoo ko suñ imaam ba Cheikh Ahmad Tidiane Cissé wax na maa ngi ko koy wax démb wax bu am solo mu ne julli sax dafay nekk wax ak jëf soog a tool soog a doon jaamu yàlla waxi kese amul njëriñ waaye jëf jëmit buñ ko naree jëf te jëfandoor ko foog ñu wax foog ñu wax ko kon jëf ak wax ñooy ànd kon feeñ na fi ci wax feeñ na fi waaye nag ñu gën koo renforcer gën koo dëgëral ba nga xam ne réew mi dana am jàmm comme ni ko monsieur le gouverneur waxee léegi dëgg la ñoom ak ñun boo ñoom ak sëriñ si laay bëgg wax man bokkuma ci li muy li muy def mi ngi mel ni benn malade boo xam ne dañ ko bëgg a faj maara day taali ñu war ko opeere kii anesthésiste la kii mooy kii opéré kii mooy ba ba ba ci euh, infirmier bi nga xam ne moo koy faj ak euh, garson de salle baak ñëpp kenn ku liggéeyam manqué rek malade bi am problème ñoom ñaarit suñ ne duñ wax te benn malade bi la bu boobaa yi tamit yëf du dem kon ñun benn malaat lañ am mooy senegal ñu war koo faj kon ñëpp ñoo ci ànd di ci di ci di ci liggéey kon nag lii ngeen def nii ñu ngi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaye yéen ñii ñuy yebal ci barab yii ñu ngi leen di ñaanal yàlla jëm yi ngeen di def ci barab yii yàlla nañ ci yëg barke mu jox leen avancement ak promotion yoo xam ne bu ëllëgee da di wax ne waaw monsieur le gouverneur moom wala monsieur le ministre naa yónnee ci jàkka ji ñu ngi leen koy ñaanal ñu ngi ñaan yàlla Sénégal def fi jàmm waaye am na leçon bu gën a mag boobu yépp mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baba Lamine mi nga xam ne mooy sama mag yebal gim ma yebal fii dafa am beneen leçon bu muy jàngale mooy bàyyi yes comme ni ngeen ko waxee daf fi nekkoon liggéeyal yàlla lim lim war a liggéeyal yàlla yëpp mais mu ne waaye comme yàlla nit day dee waaye yàlla du dee liggéey yàlla dafa war a continuer ni muy continuer mooy man ci sama wàll danaa préparer ay doom ak ay taalibe yoo xam ne danaa leen fi bàyyi ñu téye li ma li ma fi bàyyi bàyyi mu ne Euh, maamalaaji baayam daana ko wax ne ko doom ñett yi danga nga ci dégg benn meloo ni sa baay musiba la mel nga ni sa baay baax na waaye mën naa mën nga àgg ci yaa gën sa baay neexut a dégg ci nopp waaye nag lu baax la mu ne meloo ni sa baay mooy koo xam ne li fi sa baay bàyyi woon yëpp yàq nga ko kenn xàmmeewu ko mu ne mel nga ni sa baay nag mooy li fi sa baay bàyyi woon naam yokkoo ci dara waaye góor góorlu nga ba sàmm ko ba réeru mu ne waaye mel nga yaa gën sa bàyyi nag mooy li fi sa bàyyi bàyyi woon sàmm nga ko ba pare te yokku nga ci loo xam ne sa bàyyi àggu ci woon mu ne doom foog mu dégg ci loolu benn Mouhamadul Amin nag di doom joo xam ne bàyyi moom kenn mënut wax ne mel nga ni moom sax bay wax yaa ko gën waaye nag mën nañoo wax ne daal wax dëgg yàlla yaa ngi ca yoon wa waaye yàlla ci mbaaxam mu ne walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum alxaqnaa bihim zurriyatihim wa ma alatnaahum min amalihim min shay nee na bu bàyyi baaxee doom ñëw toog ci kanamu ci topp tànki bàyya dile amut góorlu bàyyi ga yàlla daf koy yéegal ci a bàyya kon daanaka buñ ne baabale mi rek mën nañoo wax ne bàyyi ñes la bàyyi jàngal leen ñoom yar leen préparé leen def leen ay imaam def leen ay lu nekk moom gannaaw bàyyi mu ne man sama rakk yii nga xam ne daanaka seen bàyyi laa parce que fekkeewuñu seen bàyyi ngor mooy lii suma bàyyi def ci moom ma def ko ci ñoom bërki démb la ànd ba Cameroun ci grande mosquée ba nga xam ne moo gën a mag ci Cameroun ministre yeeg àddina bi yëpp dajee moom mu ne ma kaay nga jiite ma xam ne su ma xamee sama bopp am na lu may jàngal rek ñu ñëwaat fii mu dellu ko loolu dama koy wax ci sant yàlla ak yi tamit jàngal nit ñi naka lañuy ñuy ak tamit yaatal mbir yi ak encourager ñi nga xam ne ñoo war a ñoo ñoo war a góorgóorlu pour ñu góorgóorlu damay wax ne nit monsieur le gouverneur danañ ko wax yaa baax ba mu baax mais nit danañ ko wax yaa bon bon bon te yaa baax nag ci làmmiñ baax na waaye nag yaa baax mooy euh, moo raw na nga ne kaay jiite jiite jumaa ji te nga am ñi ñëpp ay ay imam lañ kii doomi Serigne Aliou Cissé la imam la ca jumaa yi Madina ja normalement tey moo waroon a jiite fii parce que mët mooy imam mooy mooy ci imam la ca kii ba rakk imam la imam waaye tey liñ bëgg a jàngale moo tax ñu wane ne teraanga ji nañ ko joxante rek ay mbokk dañuy war a joxante ay teraan Sénégal gii nag loolu lañ ci bëgg li jumaa ji di junju ak symbole bii li muy junju loolu lañ bëgg ci réew mi ñëpp ànd gëm ne réew mi benn ki may tëjee mooy bàyyi sax dem na fu gën a garaaw foofu dem na ba gaana seeti Kwame Nkrumah xam nga taalibi bàyyi nañ bàyyi xel ci bàyyi Kwame Nkrumah euh, bu ma bëggutoon a guddal danaa dugg ci ay détails mais du fi xaj da ngay jàpp ne Kwame Nkrumah chrétien la muy benn nga jàpp ne ci idéologie marxiste la yéen ñi jàng tubaab xam ngeen li ma bëgg a wax ni mu garawee chrétien côté bële boobu sax garaaw diine la waaye euh, ci côté idéologie philosophie marxiste la bàyyi dem tàllal ko loxo mu ne ko yow tamit doy nga ma parce que li tax nga doy moom mooy man Afrique laa bugg a def muy benn réew def ko muy doole yëg naa ni tamit ci loolu ngay dox dañoo bokkut fu ñu koy jaar mais ñoo bokk fu ñu jëm kon nag war nañoo mën a ànd mu ne bàyyi jàppale ma ma am gaana bàyyi déglul bàyyi na ko su ma la jàppalee ba nga am gaana loo mu déedéet mu ne ko koowaam kurma ne ko soo ma jàppalee ba ma bàyyi ko danaa jàppale pour nga am gaana mu ne ko soo ma jàppalee ba ma am gaana lu ma lay fayee lu ma lay récompenser déglul bu baax bàyyi na ko li may récompenser leen rek la mooy fexeel ba boo nekkee président gaana waxuma suma taalibe yi waaye képp kuy jullit boo ko mantal jëriñ bu ko lono

bi mu toogee ci kowaam ci côté ci kanam euh, euh, Brezhnev ak ak Tito Tito ngi toog ak ak ak ak ak ak ak euh, président Ghana bi nu mu tuddati Kwame Nkrumah Brezhnev na ko man damaa jaaxle man bi may wax ne bi may dugal suma demande pour dajeeg yow dama doon formalité rek waaye foogoon naa ne doo ko nangu parce que foogoon naa ne sëriñ foofu yow ex-service sëriñ bi nga doon ak ni nga fonkee diine ak man. li ñuy wax ci affaire communisme ak nangam foogoon naa ne danga naan kooku du ma dajeeg moom xéeféer la bàyyi na ko déedéet su ma niveau ëpp na loolu man li ma jàpp mooy ñun ñëpp ñoo bokk benn dëkk bi benn village bi bëccëg bi ñun ñëpp dañoo war a liggéey ci luy defar village bi jaamu yàlla mbiram mbiram mbiram biir néeg la ku nekk boo duggee sa biir kër sa ëtt la la fay defee yaa ko xam man noonu laa ko gisee mu ne ko noonu nga ko gisee mu ne ko waaw mu ne ko kon nag beneen buntu ci dimbalante ubbeeku waaw boo amee sëriñ boo xam nag foofu la gis xam nga kuy wax maréchal Tito di wax euh, euh, nangam ak nangam xanaa kon sëriñ si nga bokk Sénégal moom la buñ duggoon ci debaa boobu moom dañ fiy def ñetti fan kooku ku ko am comme sëriñ ku am comme modèle danga ngaa war a wane sa bopp comme niñ ko waxee léegi ci yar mais ci yaatu ci ubbeeku ci jox ni ñépp loxo waxuma sax jullit ñi bàyyi wax na ci bisi gàmmu ne yéen taalibe yi na ngeen xam ne ñun jullit ñi diine ji lañ moom mais réew mi ñun ñépp a ko bokk man nag ma ne damay sob sob lu jéem koo yaatal ma ne kon ñun nañ ci xamee ne ñu nit ta tiijaan yi tariqa bi lañ moom mais diine ji ñu ñëpp ko bokk bu ma demee ba ci kanam damay wax ne tariqa bi sax nañ wax ne ñun waa fayda bi fayda bi lañ moom mais tariqa bi ñun ñëpp ko bokk buñ ko jàppee noonu nit ñëpp dañuy nekk ci jàmm waxoon naa ne du ma guddal te maa ngi bëgg a guddal euh, waaye danaa wax rek benn wax mooy fàttali xam nga nit ñi nañ nañ bàyyi xel ci mbokk gi nañ bàyyi xel ci réew mi nañ bàyyi xel ci dëkkandoor gi xam nga lu tax euh, damay ragal li ñuy li li xale yi daan wax ba ñuy jamono xale ma foogoon ne waxi xale nekk te du waxi xale ñu ne diw dafa ñeme yàlla ragal alkaati xale yi ñoo ko daan wax ma foog ne waxi xale la nekk du waxi xale xam nga loolu lu ma koy tekkee fi mu ne nii xam nga ñun administration bi Sénégal bi maanaam fa ngay liggéeyee fa ngay amee sa teraanga tax na ñëpp nangu nañoo xajoo boo fa fekkee chrétien ñemewu ko wax ne ko man du ma wax ak chrétien soo fa fekkee ku jë ku gëmut yàlla du julli ñemewoo ko ñemewoo wax ak moom ci loolu soo fa rawatina soo fa fekkee murit rawatina soo fa fekkee tijaan rawatina soo fa fekkee xaadir donc administration bi suñu àddina nangu nañ fee yaatal ba xajoo fi ba déggaguñ kuy xeex ci bureau ngir ne fii la bokk fii la bokk loolu kon dafa mel ni dañoo respecté dañoo ragal alkaati parce que alkaati bi mooy mooy administration waaw ci yàlla nag ak diine ji ñu ne duñ xajoo xanaa kon dafa mel ni ñun dañoo ragal yàlla dañoo ñeme yàlla ragal alkaati niñ xajoo ci diine ji xajoo ko ci administration bi xajoo ko ci bureau yi nañ ko xajoo ci jàkka yi xajoo ko ci réew mi xajoo ko ci diine ji xajoo ko ci tariqa yi wasalaamu aleykum wa mu ne Thank you Euh, activité bii nag moom wax dëgg yàlla ubbite jumaa ji ñoo ngi sant yàlla gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi gërëm di sant Abdou Sané Gaaj mi nga xam ne mooy suñu njiit waaw di sant yàlla bu baax a baax di remercier bépp mit ku nga xam ne teew nga ci wala sa loxo dugg na fii ci tabaxum jumaa ji jumaa ji tey ubbi nañ ko ñoo ngi sant yàlla xam leen ni waa Louga ak bépp jullit yéen a moom bërëb bi waaw ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw ñi ci des seen dërëm ñëpp yal na leen yàlla fay ci yool ñu bokk ko ñi ñëw teew si ak ñi nga xam ne bëggoon nañ ñëw te mujj ñu ñëw ñoo ngi leen di ñaanal ñaan yiñ fi def yëpp yàlla nañ ko bokk ak ñoom waaw di gërëm ak a sant waaw suñu sëriñ suñu wasila Baba Lamine ñoo koy dalal waaw Baba Lamine suñu sama mu ngi lay dalal si Louga macha allah kontaan nañu lool kontaan nañu Baye Mar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaar di leen ndokkeel gis nañ leen waa kay jërëjëf jëf. la si bés bu kilifa yu mag jógee ci pays ba ñëw ku mel ne Serigne bi Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ànd ak ay rakam yëpp ak njaboot yëpp ñëw ñu giral la ko lan mooy sa première impression li nga xam ne moom moo la gën a neex tamit ak li nga xam ne seetlu nga ak ñi jàpp si liggéey bi yëpp macha allah. impression yi mooy sant yàlla sant yàlla ci dëppale yi mu def daanaka chantier bi boo xisee boo gisee ni mu toll réaliser ko ci cinq années du lu yomb. kon sant yàlla ndax bu ci yàlla dugg toon loxoom yëf yi du sotti waaye nag lu nekk day am day nuru ki ko tàmbali chantier bi Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass moo ko tàmbali ci teg xeer wu njëkk ci le 13 septembre 2014 mu mel ni ñun 13 dafa yàlla dañu ko jagleel ba mu ñu jagleel ba jagleelee bàyyi ndax le 13 septembre lañ teg xeer wu njëkk le 13 décembre lañ ko inauguré le 13 nag bi ñuy nekk di tànn bés Baye Lamine def ne moom nan tànn treize ndax treize mooy Baye ku defee nag di sant di gërëm bu baax Mouhamadoul amin Ibrahima ñas bés bi nu mu mën a tolloo rek moom nit ñi uy wun ma uy si wun ansaaru din liggéey Louga Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass dañ uy si ndax bin xamee ne zaawiya bi zaawiyaam la moo tegoon xeer wu njëkk wi te nee na moon saa yu pare moo koy inauguré nit ñi doon nañ ko foogu ba ñu yëgee ne danañ ko inauguré rek da ñu xam ñu ci lañ xamee ne woon ne lu mu xat-xat sëriñ bi dana ñëw kon suma impression mooy mbir yi daal ku yow a bàyyee ko yàlla ndax c'était pas évident bés bii tim ku gis ni mu toll rek da ngay jàpp ne kuy ut rek utal nitu yàlla ñu ngi gërëm Mouhamadul Amin Ibrahim Niass ndax lu ñu am rek ci bés bi ak ci zaawiya bi yàlla moom ñi ngi gërëm al oustaz al marja oustaz Ibrahima Mahmoud Diop comme ni ma ko waxee ci suma propos liminaire ñëwoon nañ ci fii à quatre yoo xam ne booba daanaka mbooloo su tuuti la woon waaye nit ñi moom lañ doon xool ci ñun moo tax saa yu daan ñëw rek mbooloo di ñu dikkal suñu jotaay bi tim Mouhamadul Amin Ibrahima Niass lan di lañuy xool ci ñun moo tax boo déggee li fi néew li fi teew ci ay imam imam El Hadj Babou nga xam ne en dehors représenté imam yi moo représenté la famille Thierno Mountaga Daha xam ne maillon bu am solo la ci tarixa tijaan Cheikh Ahmad Sarr bi nga xam ne mooy doomu Cheikh Abdou Karim Sarr

kon ngërëm li ak cant li lépp moo moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam bi mu jógee di ñëw gis ngeen ñi ànd ak ci sangi Medina yi daanaka Medina kër goo dem rek sang jógee na fa ànd ak xalifa bu Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop muy Seydi Moustapha kon suñ impression daal du du daal lu may gannaaw sant yàlla gërëm ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu